ci kaawu Khalifa Sall lañ bëgg a interpeller le président de la République Macky Sall ci wàllu nationalité am ñëpp xam nañ ne boo juddoo Sénégal am nationalité sénégalaise beneen nationalité boo mënti am da ngay ñàkk sa nationalité sénégalaise ñu bëgg a demander Macky est-ce que moom gannaaw bu xalifa Sall ñàkkee nationalité française am defal décret ne Khalifa Sall am na nationalité sénégalaise ou bu fekkee amul avis yi nga xamante ni ne moom lay jot gannaaw bu jotee rapport bi nga xamante ni ne moom moo jóge ci jalog bi dañu bëgg ci avis mu saisir conseil constitutionnel laaj ko nan la def pour valider la candidature de Khalifa Sall si lan la basé wu est-ce que Khalifa Sall am na lii ñuy wax certificat de nationalité oui uno non nag sénégalais yi ñu ngi koy xaar. conseil constitutionnel pour mu leeral ko